di woto yi ñu leen ak seen kër yi ñu dëkkoon ngir euh, liggéey ministre ba euh, ëtt yéenekaay bii di Les Échos nag daan ñu indil ay précision mu mel ni nag kon mbirum véhicule de fonction yi ñu war a delloo nag jëme ci euh, ministre yi nga xam ne amoon nañ fi portefeuille yu ci gouvernement wu njiitu réew mi Macky Sall ñooñu nag kon mbir mi ñu wax daal concerné wu leen ndax nag ñooñu seeni véhicule de fonction yooyu delloo nañu ko ci jamono ba nga xamee ne rek ñu ngay def seeni euh, passation de service ak jëwriñ ju yees ji leen fi wuutu ci nguuru président Bassirou Diomaye Diakhar fay ba tey moom it yéenekaay bi duñu xamal rek ne loole mu ngi concerné yeneen ministre maanaam ministre conseiller ministre d'État ak i tamit euh, ñeneen ñoo xam ne amoon nañ ay euh, véhicule wala sax voiture de fonction ñooñee la njiitu réew wala sax gouvernement bu yees bi de di sàkku ca ñoom ñu daal di ko delloo ci nu mu gën a gaawee fileek ëllëg 24 avril 2024 ba tey les échos du ñu xibaar rek ne képp ko xam ne nag nekkoon nga ci makkaan boo xam ne da nga faa nekkoon makkaanu fonction maanaam këru fonction en tant que euh, ministre bokk na ci tamit lañuy ñuy ci yow rek euh, mbir moomee nga daal di ci àddu ci na mu gën a gaawee rek delloo li nga xamante ni. Euh, moo di euh, sa euh, kër googee nga delloo caabi ja fi lekk ñaar ci ay weer dong kott lañu la may ngir nga mën koo delloo mu mel na kon lu ñuy wax moom ca ñooñee concerne wu rek ministre yi nga xam ne yoroon nañu portefeuille ci gouvernement wu kii di Macky Sall ndax ñooñee rek mu mel ni ca bës ba ñuy def passation de service rek kenn ku si nekk ak ministre ba nga xam ne moo di ñëw jël service de la remplacer wuutu la ci siis ba nga toogoon ce bis boobee rek nga daal di def li nga xam ne moo di delloo sa caabi oto ba nu la joxoon waaye nag bu ñuy wax lu jëm ci véhicule de fonction yu war a delloo loole nag dafa concerne yeneen ministre bokk na ci ministre conseiller yu nu mel ñi nga xam ne kon amoon nañu seen véhicule de fonction ñooñu kon la ñuy sàkkoo ci ñoom rek ci nu mu gën a gaawee balaa ñu yegg ci eh, niki vingt 24 avril bii di ëllëg ak jàmm ñu daal di nag. jël woto yu nu mel daal di ko delloo ca présidence de la république ga nga xam ne rek seen i tur euh, di maanaam liste ba ba ca nombre oto yañ leen joxoon euh, ana ban euh, marque la ak yu nu mel ba ci couleur ba lépp nga fa la ñu sàkk ci ñoom rek kon moo di ñu daal di ko delloo ci na mu gën a gaawee bu dee nag ci kër yi ñu dëkkoon ñu rek ñaar ci ay weer rek lañ leen may ngir ñu daal di rek jël caabi jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di kilifa yees.